rek baax na mën nga koo jëfandikoo faslu li ab dog la fi faraidul wudu yi ci faratay njàpp faraidul wudu yi faratay njàpp yi sabaxatun juróom ñaar lañu waxiye ñoom dalkun mooy ak ragg wa fawrun aku gaaw niyatun ak yéene fii bat ixii ci njëlbeenam naa ñaar la yéene wax waaye da ko mujjee ci mujj woy ndax leeral lan mooy yéene ci woy wa ci topp daa njëkk tudd bomb rag bi wax mooy bomb maanaam boo sottee ndox da ngay bomb boole ci boo ko raayee rek bàyyi mbaa nga xëpp bàyyi te fekk nga man koo rag du doy rag googu farata la baat boobu ñuy firee fawru gaaw jubluwuñ ci gaaw dëgg-dëgg dañoo jublu sësale maanaam boo tàmbalee njàpp loo def teg ca la ca topp te bu la yàlla bindee yéex du wàññi dara waaye boo raxasee sa kanam ba noppi tey ko ba noppi di waxtaan ba mu yàgg la nga defoon day yàqu boo bëggee faji seen soxla door a ñëwaat ba tey ci lépp ko tey day yàqu kon sësale boobu ñu koy tudde almuwaalaatu ci téere yu mag yi loolu farata la nga teg ci yéene nag yéene nag moom booy raxas kanam gi raxas ba ci njëkk foofu nga yéenee la nga yéene nag mu ne wax ci way wee mooy walyeen bi na yéene rafa xadasin yëkkati am toj aw muftaradan daalu ñu farataal aw istibaaxatan wala sàkkoo daganlu limam noo in ñellu ñu tere xarada loolu gaar na yett yi loo ci yéene bu baax mën ngaa yéene yëkkati am toj maanaam ndegam nga amam toj ba tax ngay jàpp mën ngaa yéene yëkkati sa toj moomu le ba tey mën ngaa yéene joox faratay njàpp mi ndax xam ne ndegam yàllaa ko farataal ci yow mën ngaa yéene joox farata jooju ñu farataal ci yow ba tey mën ngaa yéene dagan lu lépp lu ñu aaye woon ku jàpput ndax léeg-léeg naa la ku jàppul ñu laa julli sañu laa laal kaamil nangam ak nangam yu bari léegi nag kon man nga booy jàpp nga yéene dagan lu yooyu nga xam ne te ne ko aaye woon ngir ñàkk jàpp lu neexee tam yéene yëpp waxas lu ak raxas kanam raxas kanam farata la hmm. anxas lu ak ku raxasam aljadayni yaari loxo ya raxas yaari loxo yi ba tey farata la wa masfara asin ak masa bopp masa bopp waaye ndegam na ngay dem dikk dem bi rek mooy farata waññar dikk bi sunna la anxas lu ak ku raxasam arrëjleni ñaari tànk ña raxas tànk yi ba tey farata la su ko defee ne wal fardu wal fardu farata ja xam ma matale na majj ma xal udduna yi dajewukaay ñaari nopp ña nee na ba ma nee la raxas kanam farata la xam ne kanam gi daa am ak guddaay ak yaatuwaay te na ko sàmm bu baax guddaay bi moo tàmbalee fa kawar baaxoo saxee ci jëba ba ci suuf sikkim bi yaatuwaay bi moo tàmbalee nopp bi wër ba noppi bi wëraat te kuppandal boobule loolu lépp nga war a raxas fu ci ami xóot xóot hmm. ak say ay sew sewtuñ sax boo ngewee ni nga mën a ngewee ni la yàlla binde ak suuf bakkan bi nga bañ koo fàtte ak bu jëbi amee ras-ras ak bët yi bu xóotee yépp na ko nemmi bu baax a baax hmm, loolu farata la waxam ma masale na it almirfaqa yi ni ñaari conce ya maanaam loxo itam boo koy raxas da ngay dem ba ëmb conce yi tuuti moo gën a wóor mel na ne ndax yemale yi kese daa xaw a jafe kon nga ëmb ko tuuti rek te bañ a jàll ca mbëgg yi mel ne kuy jàngu loolu nga raxas loxo yi ba mu daj loolu farata la wal kaaba yi ak ñaari dojare maanaam tànk yi boo koy raxas nga dem bi dem nga a baax ba liy wax xóot-xóotu ndëgguleeg siisi am ruq-ruq nga fexe ba ko loolu farata la moom itam yemale dojare yi kese daa xaw a jafe kon nga dem ba ëmb ko tuuti mu gën a baax xalil na nga xalil asaabi xal ya day ni baaraam yaari loxo ya wa shahra wajhin ak kawaru kanam isal jildu ndem deru yaram wa naxu na day bañ loolu isa zahara ndem feeñ na al jildu deru yaram wa min taxtihi ci suufam daa bëgg wax ne xasiyaa maanaam baaraami loxo yi ñu ko yàlla sàkke ñu ko yàlla bindee dafa sore kon diggante baaraam bu nekk moroom ma nga nemmiku ko ko bu baax raxas ko awale ci sa loxo raxas ko loolu jàppal ne warugar la dañ ko ñëwoon tërwut si xaar sax muy farata ngir topp alimaamul xoof yi wax ji gën a wër nag mooy waru gar la soo ko bàyyi am bàkkaar waaye du tey njàpp moom baax ba tey jàppal ne saa yoo xam ne am nga kawar ci sa kanam moo xam daa nekk ci lex yi moo xam dafa nekk ci sikkim bi fekkee kawar ga bëriwut nga xam ne boo dee xool di seen deru yaram wa waaw su boobaa kon day aajoo nga yëngal ko ba ndox mu dugg ci biir su fekkee daa bari ba fatt nag waaw wala saxu kaw mu daal doy yu mu wax ne idal jildu ndeem der ya des koy aaye ci naxwu ba tey des di aaye nga bëgg a wax ida zahara joojee ca mujj ca way wa dal cee al jildu am na lañ koy làqar dee ci naxwu waaye ci tollu fii mën naa am du ko aajowoo nu ko waxee rek moom baax na ndegam jàngul naxwu mën na ne idal jildu ndeem der wa zahara feeñ na mën na ne ida zahara ndeem feeñ na al jildu der wa ba bàyyi bay jàng naxwu rek door li jënti loolu sunanul lii moo di sunna yi njàpp sunna nu foo sunnaam ya asabuhu juróom-ñaar la maanaam sunna yi njàpp juróom-ñaar la waaye des na ko ñi itam nekk juróom-ñett waaye na mu juróom-ñaar la tuddandi maxaslul yadayni raxas yaari loxo ya ibtidaa an cib tàmbali maanaam booy tàmbalee njàpp mi nga raxas loxo yi ñetti yoon ba ci fi ngay takk montar baa bu dee jigéen fa muy takk jara loolu sunna la li gën nag mooy benn loxo bu ne nga raxas ko ñetti yoon soo ko boolee mu juróom benn teewul nag boo boolee ñaari loxo yépp raxas ko ñett yoon mu baax ba sax boo raxasoon ñaari loxo yépp benn yoon tam te sunu si ñëw waaye liñ gën a taamu daal mooy benn loxo bu ne nga ber ko raxas ko ñett yoon warat du masi si ak delloo masa bopp ba dafa tegalewul sunna ni daal di wàññi xaat delloo masa bi maanaam boo dee masa bopp bi dangay ngay dem dellu si dem bi mooy farata dellu bi nag mooy sunna waaye masaa bopp di ko def ñetti yoon ba ñeent dem rek muy farata nga wañat bi ko waa dellu si woon muy sunna masful ubbi nay ni ak masaa ñaari nopp ñi masaa ñaari ci njàpp dangay masaa li ngay jàkkaar boo xool nopp nit ak la féete bopp bi yëpp danga koy masaa jëlu na nga di ko nemmiku bu baax bëgg taq-taq yi dañ ak ras-ras yi ndax jubluwuñ mu set dañoo jublu rek woyefal moo tax ñu wax la masa bu jublu woon mu set ñu wax la nga raxas nopp yi madd maddatun aku galaxndiku galaxndiku sunna la gis nga ni mu koy a wàññee waaye moom dafa tëgaliwul moo tax day wàññi rek bàyyi galaxndiku sunna la galaxndiku nag mooy nga seex ndox mi yëngal ko yàbbi ko loolu boo ko boolee rek galaxndiku nga su ko defee nag nga def ko yett yoon mooy itam moo ci gën ñetti galax ndiku bu ne ak tangu boppam ko defee muy ñetti tang di ñetti galax ndiku ak sarax ndiku sarax ndiku mooy nga ëñ ndox mi ba mu jege say paxi bakkan nga ñor ci sa noo mu jàll ci biir bu fekkee danga woor nga yemale ko ci bunt bi rek bu fekkee wooroon nga ñor bu baax a baax ba mu sori ci bakkan bi hmm. moom itam sunna la def ko yetti yoon moo ci gan istinsaarun ak fiiru fiiru mooy ndox mi nga ñoddi woon ba mu dugg ci say bakkan nga ñàpp nga jàpp ci say bakkan mel ne kuy ñandu daal di koy wal mu génn ci bitti loolu moo tudd fiiru itam nga def ko yetti yoon sunna la tartiibu faradihi ak toftale farataam ja maanaam booy jàpp nga tegale farata yi ni ko alxuraan tegalee faxsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsaxu bi ruusikum wa arjulakum ilal kaabayni xam ne raxas kanam day jiitu raxas loxo raxas loxo jiitu masaa bopp masaa bopp jiitu raxas tànk nga tegalee faratay noonu ba tey loolu sunna la wa al muxtaaru mooy la ñu tànn boo ko wàññee fii nekk juróom-ñaar lay doon ci ni mu bàyyi benn mooy yeesal ndox mi bala ngaa masaa nopp yi nga yeesal ndox mi mooy bi nga masaayee bopp bi xëy na say loxo tooy na ba tey waaye nag nga asaat ndox mu yees def ko ci baaraam yi masaa nopp yi loolu la ñuy wax yeesal ndox loolu moo ko war a juróom-ñetteel te andiwu ko wal fadailu ngëneel yi ata dikk nañu ahada chara mbir mu ñëw ak benn ngëneeli njàpp yi nga xam ne boo ko sàmmontee dana tax sa tuyaaba yokku fukk la ak benn tasmiyatun moo di wax bismillaahi naa booy tàmbalee jàpp nga wax bismillaahi loolu ngëneel la wa buqaatun ak pàkk xaddu taxurat bopp laab na maanaam nga jàppee ci pàkk bu laab nga xam ne amul sobe waajaluñ ko ngir sobe su doon wanag woo xam ne ko rëdd ba àggal rek defar bu mu jekki waaye kenn demagu ci du tee ñu sib nga jàpp ca dañoo bëgg nga jàpp ci béréb boo xam ne laab na te waajaluñ ko itam ngir sobe du nag boo jàppee ci wanag mbaa béréb bu am sobe itam du tee rek njàpp moomu baax taqliilu maa in ak néewal am ndox bokk na ci ngënee li njàpp yi néewal ndox bu nee neewal ndox mooy ngay def ndox mi lu yem rek te di ko bomb bu baax ndegam nit ñi yàlla yemalewu leen ñii dañoo tuuti ñii seen yaram rëy ñii seen yaram nooy ñii seen yaram ñagas dañoo bàyyi rek kenn ku nekk daal fexeel ba la ngay tàng di ko def ci cër ba mu jaadu rek nga xam ne ëpp boobaa rek loolu def nga lu ñu sopp wata yaa mun li inaay ak ndeyjooru ndab la dañoo sopp boo dee jàpp ci ndab lu ubbi ko mel ne bool wala biñuwaar xam na ngay as dañoo sopp mu féetale ndeyjoor ndax moo lay gën a jubu waaye boo dee jàppee ci lu mel ne sat la mbaa baraada nag moom dañuy sopp mu féetale càmmooñ ndax moo lay gën a jubu wa ak tollan yu ne tollan mooy ñaareel wat tasliis ak mu ñetteel fii maxzolinaa ci lu ñu raxas sunu maanaam lu ñu raxas sunu yaar la mooy kanam ak loxo kanam ak loxo dañoo bëgg boo ko dee raxas nga raxas ko yetti yoon soo raxasee benn te nga xam ne daj na te set kon farata jàngoog ñaareel bu ngëneel la ñetteel ba ngëneel la waaye boo raxasee benn te dajut ba setut faaw ñaareel du mën a ñàkk boo raxasee ñaar te ñaareel bi dajut mbaa setut faaw ñetteel du mën a ñàkk waaye nag boo def dem daj ca set rek ba ja topp ngëneel la kon jàppal ni boo raxasoon benn yoon te mu daj ca set raxasum ñaareel bi ngëneel la raxasum ñetteel bi ngëneel la badu ul maya mini ak njëkke joor ya dañoo sopp lépp lu am ndeyjoor ak càmmooñ nga njëkke joor ba mujje càmmooñ ba niki booy raxas loxo yi nga njëkke boobu joor boo raxas tànk yi nga njëkke boobu ndeyjoor siwaakun ak soccu dañoo sopp soccu ci jàpp soccu na li ci gën bala ngaa tàmbalee jàpp ngay wut bant mbaa leneen lu ñagas léegi boo yàkkamtee mën ngaa wut boros rek boo xam ne amul ñam wi ci dem muy amul liñ ci def ko boo yàkkamtee loolu baax na boo jëlee bant yi tam moo ci gan bu ko defee nag nga socc ba noppi galax di ko tuur nag door a tàmbalee jàpp loolu moo gën ci socc boobu ba tey nag boo soccoo sa baaraam itam baax na wanu di ba soppeef na tartiibu mas noonu yi toftale lañu sunnaalam aw maxma wala ànd ak la nga xam ne yejigu dana war daa bëgg wax ne nga toftale sunnay njàpp mi mu ànd ak farata yi nam war a dugg ci biir mu duggi ko ci biir loolu ngëneel la xam nga toftali farata yi kese moom sunna la su nga ko léegi léegi nag nga toftali sunna yi mu ànd ak farata yi bugg ci biir nam ci war a dugge lu nekk nekk fa mu war a nekk ci niñ ko tegalee loolu lay wax naa ngëneel la sunna yi tegaloo ba noppi nag dugg ci biir farata yi nam ci war a dugge loolu mooy doon ngëneel wa bat ku masir si ak tàmbalee masa bopp ba min muqaddamihi ci njëlbeenam booy masa sa bopp nga tàmbalee ko ci jëbi fi kawar baaxoo saxe dem ba ca doq ba nga wañar bi kuwaat ñëwaat ba ci jëwi loolu dañ koo sopp dong fi mu toll boroon masaa tàmbalee ko ca doq ga ba delluwaat ci doq ga tam lu baax kon tàmbalee ci njëlbeenu bopp bi muy jëwi dañ koo sopp rek ko ak xalilam asaabihan ay baaraam bi xadamihi ca ndëggoom la boo dee jàpp say baaraam yi ndëggu diggante baaraam bu nekk moroom ma nga nemmi ko bu baax raxas ko loolu dañ koo sopp ndax ni yàlla bindee baaraami tànk dafa jege bokkut ak baaraami loxo baaraami loxo mu soree moom nga xañul ko warugar la boo ko bàyyee am bàkkaar waaye baaraami tànk dañ koo sopp rek boo ko bàyyee wàññi sa tuyaabu waaye dara du ci nekk wakkur wi sibeef na assey yi dolli xalal faral bi ca farata ja la daa masin fa ak masa wa fil xas li ak ci raxas ga xalaamaa ci kaw li nga xam ne xoddida limiteef na ko wala daytaleef na ko maanaam li ñu la digal boo ko weesoo rek ci masa yi ak ci raxas gi rek am nañu ne def nga lu ñu sib am nañu ne def nga lu araam mel ne masaay bu dee bopp lañu laa digal nga dem rek dellu si yem ci bon boo ko yokkee rek am na wax ak sib am na wax ak araam moom sib gi la ànd raxas gi gën gaa bari bu dee loxo mbaa kanam ñett yoon rek lañu wax ñett yoon mooy yemukaay bi kon boo ko weesu raxas ñeenti yoon mbaa juróom da nga def lu ñu sib mbaa lu ñu araamal sib gi nag bari nañu ko wax boo ko ne li mooy fañ la yemloo ci cër ba nga bañ caayam nit ki xam nga dañ laa sàkkal ne la kanam gi daa am guddaay am yaatuwaay waaw léegi nag boo demee ba bëgg raxasaale lu ci bokkut ah, lu ëpp li li lu rëddal su boobaa def nga xam nga loxo yi dañ laa wax nga yem ci coñceli mbaa nga ëpp ko nga ëmb ko tuuti ndax yemale ki si daa yombut waaye nag boo ko toppee wuti mbagg mu mel ne kuy jàngu su boobaa ñu sib ko tànk yi dañ laa yemloo ci dojar yi kon boo dee raxas tànk yi boo weesoo dojar yi fara mel ne kuy jàngu wuti ci kaw ba ñu sib ko kon cër bu nekk fenn la yemloo rek yem fa lim bi la jox ci raxas gi mbaa saa gi tam bul ko weesoon waxaa gisul fawri aji lott ci gaaw banaa jokk na maalam yetul li fer yeggut yóbbu sil axda ci waw ko cër ya fii zamanin ci jamono moo otadilin ji aji yemoo day ne woon al fawru ñu koy wax gaaw te jublu ci rek sësale day ne woon farata la nga xam ne su fekkee da ngaa fàtte si sa léegi mel na ngay jàpp yàgg nga fàtte ne ci jàpp nga nekk nga nekk di waxtaan rek ba fàttaliku ko waaye fàttale moom loolu du ko yàq kon daal jàll rek moom waaye nag bu fekkee ne la tey nga mën a sësale mooy ndox ma nga yoroon moo jeex kooku dañuy seet bu fekkee wutoon nga ndox mu doy sëkk ci fa ñuy wute ndox bi nga ñëwee bay jàpp ne la ndox ma tóoru kooku moom bu wutiwaatee ba ñëw da ngay wéy rek ndax dañuy jàpp ne sàgganoo ndax ndegam moom ba ngay wutal nga sëkk yàlla dogal tóoru gi rek moom yàlla dogalee nga wutiwaat ñëw fekk mu yàgg yi da nga toll woon rek waaye bu fekkee da ngaa dem ba fa ndox ma am nga wut loo xam ne ngay nattal yoo xam doy na am doyut ba nga ñëwee bay jàpp nag farul doy kon dañ jàpp ne la lu càggante la boo ñëwee bay jàpp yàgg nag mu manqué ngay wutiwaat dañuy seet boo gaawee ñëw te yàggut la nga defoon baax nga jàll bu fekkee yàgg na nag la nga defoon yàqu nga tàmbaliwaat ko dañ doon wax naa ne yàgg nga ñu ngi koy xàmmee ci cër yi bu fekkee la nga jotoon raxas ci say cër wow na te fekk jamono ji tàngul seddul yow ci sa bopp mage woo ndawe woo kon bu cër yi woowee tegtal la ci ne yàgg na ñu ne woon nag bu fekkee ne loolu da caa tasiwut nit ki jamono ja daa tàng mbaa mu sedd mbaa yow ci sa bopp dangaa mage mbaa nga ndawe yu mel noonu dañuy seet ku dañu takk yàgg ko ci aada rek nga xam ne buñ ne boobaa léegi yàgg naa ñu ne waaw yàgg na kay su boobaa ñu xam ne kon yàqu na buñ ne boobaa léegi yàggut ñu ne déedéet yàggut ñu xam ne boobu yàquwut baakiru faradihi aji fàttaliku farataam bi toolin yàgg dana ko def faqat dong boo dee jàpp fàtte ca farata ba mu yàgg nga door koo fàttaliku kon soo dikkee moom farata ji nga fàtte woon ndong ngay def du jar ngay baamu la ca toppoon dikki mu fàtte raxas loxob càmmooñam ci misaal ca njàpp ma ba mu yàgg ba mu ko fàttalikoo nag kon bu ñëwee bu raxasee loxob càmmooñ boobee kese mu doy du aajowoo muy jàll di massa booba di jàll ba ca tànk ya wa fil qurbi bu dee ci jege nag ak jege mooy ñàkk yàgg almuwaali aji sës ja yukk mi loxoo dana ko mottali dañoo sopp nag bu fekkee dangaa fàtte woon farata ci sam njàpp nga gaaw koo fàttaliku boo dikkee ba def li nga fàtte woon nga baamu li ci sës waaye baamu gi ak sopp rek la lu ki mel ne li nga misaaloon léegi ba ngay jàpp bool fàtte woon raxas sa loxob càmmooñ te gaaw koo fàttaliku boo dikkee dañoo bëgg boo raxasee loxob càmmooñ bi nga jàll nag wéyi ma saa bopp ba jàll ba ca tànk ya waaye moom itam boo raxasoon rek li nga fàtte woon yem ci mu daal doy baamu la ca topp koo sopp rek moom inkaara ndeem nekkoon na nag sàllaa di julli ci mboolem yooyu yëpp batalat kon julli ga yàqu na nee na saa fàttee farata ci njàpp mi dem julli rek xamal ne julli googu du baax ndax bu nee nangam farata la moom soo ko bàyyee la nga doon def du baaxati wa man zakara ku fàttaliku sunnatahu sunnaam yafxaluha dana ko def lima ngir li nga xam ne xadara namm naa teew ci jaamu yàlla nee bu fekkee ba ngay jàpp da nga caa fàtte sunna ni ki gàllo xam ne kumba sarax ni kumba yu demee noonu boo demee julli itam du dee julli nga nga julli baax na ndax bàyyi sunna moom du yàq julli waaye daañu sopp bu fekkee yaakaar nga ne sa njàpp moomu da ci defaat geneen jaamu yàlla nga dem defi sunna si ndax booy def jaamu yàlla googee fekk njàpp mi mat ay sunna ndax matee ay sunna mooy ëpp tuyaaba moo tax te bu fekkee da nga daal di bëgg dem ci wana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 waaye bu dul loolu dana toj njàpp ma digalu nag ku ko def mu raxas sawukaay bu fa mu saxee ba fa mu yem doonte foofa taqu ca dañu ko digal rek sukkurun ak màndi màndi moom day tàgg tàggali nit sagoom doonte la màndi mu sax ni ki naan am soow rek wala garab ko tubaab jox mu doon ko fajoo rek du tee ndegam tàggoon ak sagoom faaw na jàppaat ndax amaana jamono yam tàggoog sagoom mu defal fa lu toj jàpp te du ko yëg wa ixmaawun ak xam xam ba tey day tax a tàggoog kon ku xam bu ximmee sa yeboo mu jàppaat junoonu ak ndof ndof mooy lu mel ne say koo xam dafa jàpp noppi say moom mu dal ko say boo mu say ma jeexee mu jàppaat ndax xëy na def na fa luy te jàpp mën naa mu def fa luy tëj jàpp téegu ko wadd yun ak wadd yu wadd yu day nekk ndox mu weex moo xam day far day far na di génne ci sawukaayu góor gi bu fekkee ne dafa ñàkk dem ci wana wa ñu wax seere am diir mbaa mu tawatoon bay door a tane nga xam ne deretam dafa wàññi ko mbaa mu amee sedd yu mel noonu daal dan mën na am mu tax bu dee saw ba ci mujj saw ma ndox mu weex moom mu defar génn su génnaali saw ma mu raxas ko moom dana ko defal noflaay waaye nag bu demee bay jàpp ci biir mu génn mbaa mu jàpp ba noppi mu door a génn su boobaa day yàq njàpp ma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 wa xubalatun akuk foon wa zaate lii in wujudat mooy ndem ameef na laddatu aadatin bànneexub aada maanaam góor wala jigéen koo ci xam ne ba jàpp jàppee ba noppi dafa laal moroom ma mbaa mu fóon ko fóon fóon boo xam ne bukk te bu gimiñ dañuy seet bu fekkee laal ga mbaa fóon ga naka jekk bànneexu la ci jublu woon kooku dañuy jàpp ne moom toj na doonte bànneex moom jublu amu ko jëyit du moom mu toj ba ca des mooy jubluwu ci woon bànneex waaye far na ci am bànneex ci laal ga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 kon say bu mu doyloo rek njàpp mooma ndax bu ko toppee xelam da yàqu kufur man ak weddi koo xam ne kafara weddi na lool la ñuy wax murtat ar riddatu maanaam koo xam nekkoon na ci lislaam gannaaw ba nag mu wax lu ko ci génne mbaa mu def ko kooku bu fekkee dafa jàppoon ñu wëlbati gu waar ko fi saasa ba mu nangoo dellusi ci lislaam itam lu tey jëmi jàpp moom jàppoon moom weddi gi weddi yàlla mooy murtat googu yàq na ko saye boo faaw mu jàppaat waye jigu dana war istibraul axbasayni laablu yaari sobee waaw daa wax ni nag koo xam daa dem ci wana wa day teeylu ba mu wóor ko ne li war a génn génn na mu door ko raxas ndax bu yàkkamtee te fekk am lu dara a génn itam day sonal boppam rek ndax bu jógee dara génn te sobeel boppam ba noppi am lu ko coono lu jëpp nag xayta yi moom li fee mu ngi ni mi ngi génn rek say boom di ko xaar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 faradu xusli faratay ca ngaay xastun mooy yéene yu tadaru juj def na ko teewlu maanaam bokk na ci faratay ca ngaay yéene joox faratay ca li moom na su ko soowee buy tàmbul yéene fi saasa ndax ndegam mboolem der yaram yépp ñu raxas ko farata la kon bu ko neexee buy tàmbali daal yéene fi saasa fawrun aku gaaw dañ koy firee gaaw rek waaye mooy sësale maanaam boo xasee tàmbali bul ko dagg di dem di waxtaan baa ngay faj benn soxla soo ko defee rek ñàkk ko susali te tey ko mu daal yàqu xamoo mu dal ki ak matale ragg ga maanaam fenn fu ne nga fexe ba sa loxo ak ndox àgg fa nga bomb ko loolu ba tey farata la taxliilu shahari ak xajul kawar ga foo xam ne am na kawar ci saw yaram rek nga yëngal ko ba ndox ma àgg ci biir ba mu tooy ba ci deru yaram ba ba tey loolu farata la kon ci ni wàññee moom yenti farata moo nekk foofu fataabiya na nga toppaat alxaf yi aji nëbb ja mis la rukk ba tey ni kem ñaari bëti woom ya wal ibbati ak poqutaan ma nee na nag booy sangu farata da ngay seet ruq yi nga xam ni moo am ci sa yaram nga nemmi ko bu baax yóbbu fa sa loxoog ndox ba mu wër ne ne ba mu set na mel ne ñaari bëti yi daa am ab xóot-xóot poqutaan bi itam noonu da ko am war ruq yi ak teppaxu teppaxu mel ne bu dee cosaan lupp yi wala biir lupp bi lu mu ci mën doon nañ ko nemiku bu baax a baax boo baynul aliyatayn ak diggante ñaari njekkikaay diggante ñaari njekkikaay yi day am ab xar-xar foofu itam na ko nemiku ba loxoom ak ndox àgg ba wasil na nga jokkale li maa ñeel la nga xam ne xasura jafe na bil mim jiili cib sarbet nax yu ak lu mel ne moom nee na nag na nag foo xam na ci saw yaram nga àggale sa loxo daa jafe daa tudd sarbet waaye mooy lu mel ne njàmpe wala beneen morso sarbet boobu ba tey baax na maanaam bu fekkee man naa am leneen loo fa mën a àggalee ndox mi ni ki njàmpe boobu wala sarbet bi wax wala benn musuwaar mbaa yooyu kon nga fexe ba àggalee fa ndox ma ca loola tel xabli ni ki ak buum ni ki buum sax boo ko mënee laxaar fa sa loxo jotiwut moom nga fexe ba mu àggale ko fa ba tey foofu loolu baax na lim ci teg nag ne wa taw kiil aku wakiil wakiil mooy délégué maanaam woo ku la ko ragal ma ne bu fekkee am nga koy seel nga woo ko mu ragal la ko waaye ñoo daañ ñu bari daal liñ gën a liñ gën ànd mooy su fekkee woo kenn dong mu raxasal la ko moo ci des saye bo bàyyi maanaam boo fa xëppee ndox rek bàyyi fépp foo xam ne sa loxo mënu fa àgg amoo leneen loo ko àggalee ci sa loxo nit ki njàmp gi mbaa buum gi yooyu bu rek desee saye bo bàyyi ko loolu sa jaan wàcc na sa xëpp fa ndox rek da bàyyi sunanul xusli lii mooy sunna yi cangaay sunanu foo sunaam ya mad madat